kontaan naa si. mais ah, nii nga def rek ñu waaw moom yow ci moom nag. waaw waaw yow dama lay bëggee lool nag nit ku baax nga. waaw mais kuréel barki waaw. da ñëw mhm. mi ngi nii. réew mi dafa bari stress. waaw ñi sonn nañ. Mhm. maayin yi mhm. doxatul. léeg-léeg da ngay génn nga ñëw nga féexal sa bopp. réew mi du politique kese. dund dafa baax ci doomu aadama ngay génn di dund laa ilaaha illallaah dafa neex de laa ilaaha illallaah mi ngi sama rakk jéeg mais nan la kon kon moom dafa araamal boppam euh, euh, almadi wala dafay rëkk te li muy rëkk bareegul nee naa ko mu arrêté rëkk bi mhm. barki rasulilaay day jigéenu jàmbaar mhm. kura maki ma ne naa mu ne ma réew mi bari na jaxasoo xale yi mhm. yéen a ngi fàttaliku ay matina disco yooyu da temps yooyu est-ce daan ngeen dégg kidnappé ak rey jigéen ak a xeex. musuta am. kon lii dafa nekk ferte bépp jigéen ak bépp fierté sénégalais. na nit ñi ñëw. di bàyyi ndik fii di lekk yu baax. di déglu musique. di féexal seen xol. xale yi bàyyi géej gi. ma ko ci dolli danañ bàyyi géej gi. seen yaay yi bu ñu leen rey ñaari yoon. benn yaay bëggul suul kenn. ah taxaw est-ce que du lu ñu yaakaaroon ci nguur gi ba peut-être. nguur yorul réew ku état yor homeless ngay nekk ci àddina sa àddina du baax bàyyi leen loolu ñaanuma yàlla man sama doom yi wala man état dinu yor man yàlla daf ma bind jox ma ay loxo ak ay tànk te lépp lu may am ci àddina bëgguma hurt samay parents bëgguma leen a gaañ demal nga wuti ci yoon mais bul dem pour ñi dee ñëpp ñun bëgguñu ko. ah la Sonko wax. bëgguñu ko. ruiné dañu gëm la ñëpp Sénégal te état état ku mu yor nga torox ma wax leen ko. addina fi ma dem yëpp ci addina ñi état yor ci mbedd la ñuy mujjee dégg nañ leen jéem a liggéey jël suñu bopp yi génn ci mine yi ñu def. état état état li yow eh déglu ma wax la déglu ma ma wax la déglu ma sama rakk ji dafa ubbi nii. <laughs> ma ñëw fi bëgg xale yi ñëw di bëggee bul ma indil ay kalaw kalaw salut mais. <laughs> How are you doing? Good. How are, are you? you okay? I'm yeah, you was giving me your number during the election, but after I saw it calling. ah yow tamit yaa fi taxaw. ok just give me uh, your number. no from you say Senegal. I will meet you at past Amadou Ba when Amadou Ba was. oh yeah you're right you're right I remember now. I will I think when I see you after we can give you some interview tell us the reason. okay how do you see this. I think that's so cool. it's uh, something is wonderful Vivian do. Yeah. It's for all Senegalese people even immigrant people. Senegal right now is crazy right now. So what we need is peace. Enjoy, our life. You see, every if you see some people here, they're a little bit angry. I, don't know why, because they make them to themselves, their mind. the government have to take care take you, take you. all the Senegalese people. Yeah. Now that's not yeah. gonna happen. Sonko Macky Sall ma ne bu kenn jël sa life di ko jox état. doon xale ni état may yor mënul ne. I don't care. no that's not gonna happen. waaw Sonko lu tax wax loolu laa xamul. lu tax dafa bëgg a yàq seen maay pour gëm loolu. nee na amul dara xaw am na. lu tax ma jóg ma jógee Amérique di ñëw fii léegi. loo gis ci passeport diplomate yi nga xam ma passeport da ko fi la. ay yow bàyyi ci ndox na ñoom ñoom ñoo xam man passeport américain laa yor. Ah, ah, lan la boîte bi. waaw xaar bi déedéet tey moom nag man damay ñibbi. ndey sa xarit tey dafa ubbi boîte. ah incha allah fi mu nekk nii moom almadi moom. almadi moom bare ngeen fa moom. almadi la wax almadi moom bare ngeen fa moom. lu tax ñu bare fa. ah xaritam dëgg wax Viviane ne. day cof fee ngi nii nañu wax nag tey. Viviane day cof fii di cof fee. day cof fee dañ koy toxal mu ñëw fii. ah il a xam almadi moom dañ koy toxal mu ñëw fii. Ablia almadi dañ koy toxal mu ñëw fii. Ah, ah. loolu challenge mu métti loolu mënul ne. ah dañ koy toxal mu ñëw fii de parce que parce que parce que euh, euh, jeeg bi fii la ñëw de. Ah. Eh, gis nga restaurant bi yéeg nga ci kaw boo yéegee ci kaw daw <laughs> kii war naa mariage yi toll nii ñuy wax waxu mariage mu ne wàcc ubbi boîte bu mel nii ak restaurant bu mel nii te ba pare nag ubbil ko jeune artiste yëpp pour ñu ku bëgg a liggéey nga ñëw liggéey ñëpp la ko ubbil tëjul benn porte pour benn waykat ubbil na ko xale yëpp lañ bëgg mu wala wala. mbay man de tout yow man li ma lay njëkk a ñaan mooy sa yaram bi dafa tàng va à l'hôpital tu vas te soigner un peu après non non non mais il lu mu la wax ni solution la Abou Cibolo wala. Abou Cibolo kooku maa xam nga ne kat la. waaw parce que sëñ Tuubaa maa xam ne Viviane da koy woo mu ñëw parce que Viviane dafa bëgg Abou Cibolo. waaw Abou Cibolo keroog mariage yu bi kan kan moo ko ubbi. amu ci góor wéy na lu neex. ñu may ko xaalis bu bari mu xaaj ko jox ma xaaj tamit. <laughs> day wéy jot na la taaj mais lan moo tax lan moo tax des bi sabar bi tey. laaj yéen lañ fa doon woo yéen lañ fa doon woo ndey gay yow lañ fi yaa ko doon def. sama rakk jéego mais noonu la kon kon kon moom dafa araamal boppam euh, euh, almadi wala. dafay rëkk te li muy rëkk bareegul nee naa ko mu arrêté rëkk bi. Mhm. barki rasulilaay day jigéenu jàmbaar. Hmm. kura Macky ma ne naa mu ne ma réew mi bari na jaxasoo xale yi hmm. yi a ngi fàttaliku ay matinée disco ak yooyu da temps yooyu est-ce daan ngeen dégg kidnappé ak rey jigéen ak a xeex hmm. musuta am kon lii dafa nekk fierté bépp jigéen ak bépp fierté sénégalais na nit ñi ñëw di bàyyi ndiku fii di lekk yu baax di déglu musique di féexal seen xol xale yi bàyyi géej gi ma ko ciy dolli dinañ bàyyi géej gi seen yaay yi bu ñu leen rey ñaari yoon benn yaay bëggul suul kenn. ah est-ce ci nguur gi ba peut-être. nguur yorul réew ku état yor homeless ngay nekk ci àddina sa àddina du baax bàyyi leen loolu. Mhm. ñaanuma yàlla man sama doom yi walla man état di ñu yor. Mhm. man yàlla daf ma bind jox ma ay loxo ak ay tànk. te lépp lu may am ci àddina bëgguma hurt samay parence bëgguma leen a gaañ demal nga wuti ci yoon mais bul dem pour ñi dee ñëpp ñun bëgguñu ko ruiné de la Sonko wax bëgguñu ko ruiné dañu gëmaloo ñëpp Sénégal te état état ku mu yor nga torox ma wax leen ko addina fi ma dem yëpp ci addina ñi état yor ci mbedd la ñuy mujjee dégg nga mhm. nañ leen jéem a liggéey jël suñu bopp yi génn ci mine yi ñu def. état état état li Ousmane Sonko wax ne ñoom. yow eh déglu ma wax la déglu ma wax la sama rakk ji dafa ubbi lii. waaw <laughs> Victoria <laughs> ma ñëw fi bëgg xale yi ñëw di bëggee ah, bul ma indil ay kalaw kalaw salut man. <laughs>